Youssouf euh, Mbengue maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. Youssouf nga bokk ci kuréel gu ñuy wax ADAF ngay yàgg yëngatu ci wàllum euh, migration déjà yow naka nga analyser euh, discours wala cause bi nga xam ni Tahirou Sarr si lay yëngatu du mouvement des nationalistes di xeex étranger yi ni ñu nekkee fii ci réewu Sénégal naka nga jàngate Euh, cause bi nga xam ni moom la Tahirou Sarr di défendre fi mu toll nii mu jur coow lu bare bare euh, surtout ni muy kaase nekkin bi fi guinéen yi nekkee. waaw Ndeye Comba bu ma nuyoo ba pare vraiment maa ngi ñëw di la xamal ne man d'abord euh, en tant que président Fazer dama jiite kuréel bu ñuy wax ADAF muy Alliance Diaspora Afrique ñuy yëngu ci wàllu panafricanisme ndax dama def libi ay at yu bari da jamono bi fa nekk yépp ñu ngi liggéey ak le colonel Khadafi di ko jàppale si Union africaine bi nga xam ne bi euh, objectif am la woon lu mu bëggoon mu sotti la ndax bu ñu xoolaatee Afrique li waral mu doon continent bi gën a pauvre am ay guerre am xiif am corruption am lu ne c'est parce que Afrique dafa dund ñaari époque yu metti muy esclavage muy colonisation muy balkanisation waaw esclavage ak colonisation moom jàll na mais quand même euh, effet yi des na fi waaw loolu jàpp nañu néewal nañu doole li si des nag mooy balkanisation balkanisation moom mooy jamono bi nga xam ne si atu 1884 1885 colo colon yi pays yi nga xam ne ñoo colonisé woon Afrique dañu dajale woon si les pays de Balkan ñu ne nag léegi Afrique dañ koy dañ koy dañ koy séddoo séddoo ko comme ku yore sa gâteau ku ci nekk dagg lu mu li ko li mu soxla daal di koy jël féetewoo ne moom moom moom lii daal di tracé ay frontières frontières yooyu laa wax nag ne existé wul ndax fépp fu ñu ne frontière frontière am na fa rek dafa xotti benn famille da ngay dëkk réew boo xam ne doomu baay yaa ngi ci euh, exemple bu may joxe comme Gambie yeneen doomu baay yaa ngi Sénégal kon frontière boobu dañ ne dafa jaar ci biir famille mais frontière boobu existé wul dañ ko dugal ci mentalité yi ba nit ñi gëm ko mais africains yi waruñu gëm loolu. d'accord kon Afrique waaw. Mhm. daf di benn peuple benn peuple bu ñuul la li ñuy wax ay xeet ak ay pays yooyu yëpp ay diversité la mais Afrique benn peuple la pour nag ñun ñu dellu am doole mën a concurrencer yeneen continent yi. foog ñu fexe ba Afrique nekk benn comme ni ko ñoom Kouéma Nkrumah doon xeexe ñoom am Muammar Kadhafi doon ko xeexee ndax Afrique mooy continent bi nga xam ne moo ëpp koom ci àdduna mais moo gën a ndóol loolu yëpp yooyu moom mooy cause bi kon tey bu ñu demee ba nga xam ne bii dañu xalaat ne ñun Afrique dafa war a nekk benn am ñoo xam ne dañu ñëw di wax ay problème mu ethnie ay problème mu xeet ay problème mu kii fii la dëkk kii dëkk fii loolu dafa ñaaw kon monsieur Tahirou Sarr maa koy woo mu xoolaat boppam xam na yoon bi mu jël nii du yoon bu baax foofu du yoonam bu dee siiw la bëgg mënu ko cee am bu dee jàmm la bëgg mënu ko cee am ndax lii danger la ndax lii mën na fexe ba jeunes yi nga xam ne ñu ngi fi amuy liggéey yaakaar ne gan ñi ñoom ñoo leen xañ liggéey ñu xëy révolte créer fi génocide ndax loolu ñun daf ñoo mosoon a dal bi ñuy nekk Libye bi ñuy nekk Libye Muammar Kadhafi nekk di liggéey ci Union africaine am ay opposants yoo xam ne dañuy nekk ci suuf di yàq xelu libyens yi naan leen Xadafi seen alal lay jël di ko pasar pasare biir Afrique ba benn bés libyens yi jóg dal ci kaw africains yi rey ci lu bëri gaañ ci lu bëri kon loolu yaakaar naa ne moom bu dee tukki na amul expérience ku tukki bu amul expérience ku tukki wax bii du ko wax ndax ni Guinéen yi mel fii Maliens yi mel ko fii noonu la Sénégalais yi mel Guinée mel ko Mali mel ko feneen nis Guinéen yi monopoliser commerce bi noonu la ma sénégalais yi euh, monopoliser ouvrage bi en Guinée ndax fii bi fi Mauritanien nekkee problème am ñu dem te problème boobu sax war nañoo yee ba ñu bañ a fexe ba lu mel noonu amaat fi mais bi Mauritanien yi demee sénégalais yi dañu jël boutique yi mais bi ñu jëlee boutique yi mënuñu dem ñoom ñëpp dañu daanu kooku du seen domaine ki nga xam ne kii Guinée bi loolu moom mooy domaine mu jël ko affaire am du dox yaakaar naa ne ñun aussi dañ see am intéret li war kañ moom mooy ñu organiser leen organiser liggéey bi organiser ni ñuy jaay ba ku si nekk mën see gis sa bopp mais vraiment loolu daal damay ñaan Tahirou Sarr daal mu teg ku si suuf seet bu dee dafa bëgg nguur wala dafa bëgg a siiw mu xool beneen projet boo xam ne bii moom lay jël mais kon Ousmane Sonko la mu ko tontu yow da see ànd si bépp anam wala waaw macha allah discours yi muy Ousmane Sonko def si campagne bi yépp discours bii mu def géejawaay moom moom si gën a neex ndax man dama di un panafricaniste kon bu ma gisee kuy défendre cause boobu rek vraiment daf may daf daf may neex daal waaw ndax loolu aussi euh, moom mooy dëgg waaw li ma wax nii rek moom la wax puisque loolu danger la si dëkk bi ndax mun na tax ba xale yi jóg yaakaar ne euh, li ñu ñàkk gan ñee leen ko xañ ñu song gan ñi loolu kon yaakaar naa ne Tahirou Sarr dafa nekk di jël rancune bi ko def si xolu xale yi te loolu je pense que baaxul. Hmm. puisque ñëpp yemuñu am nañu am. capacité de discerner li Tahirou Sarr wax segg ko xam li si njariñ ak li si dul njariñ mais am na ñoo xam ne niñ ko déggee rek noonu lañ koy jàppee te loolu erreur la. Euh, kon euh, mais ñu ngi dégg ne Ousmane Sonko mi ngi wax wàllum réciprocité des visas yow euh, loolu noo ko gisee est-ce que ànd bëgg nga ñu àndiwaat ko wala àndoo si ak aussi carte de séjour pour les étrangers yi dund fii ci Sénégal. waaw réciprocité des visas. gouvernement Sénégal ba léegi jàll tenté woon nañ ko fi mais demul li tax ba demul mooy dafa commencé woon rey tourisme bi boo nee eh, européen bi kiy ñëw fii ku mu mun a doon da ngay am visa comme ni ko sénégalais bi amee te doole réew yi yemuñu bu boobaa ñoom mun nañu ne loolu jaralu leen ko puisque Sénégal ñëw xool tourisme def fi seen xaalis rek moo leen fiy indi buñ téye seen bopp nag bu boobaa secteuru tourisme bi dafay am problème mais réciprocité des visas moom lu am solo la parce que boo gisee xale yi di dee ci géej gi visa bi nga xam ne moom la occidentaux yi jafeel loolu bokk na ci euh, cause yi hmm. kon nag damay wax le premier ministre Ousmane Sonko bu dee ci projet Sénégal deux mille cinquante bi gis na ne ñoom mun nañ protéger tourisme bi ba tourisme bi du naax saay bu boobaa réciprocité des visas moom loolu moom lu may tàccu lay doon. Mm-hmm. li nga xam ne nii moo jëm si carte de séjour yi aussi loolu dafa jëm si cadre organisé étranger yi fi nekk mais du question que dañ leen di teg loo xam ne lii munuñu ko wala di jël séjour yi di ko jaay comme ni ko ñeneen pays ay gabon yooyu di jaayee. loolu yaakaar naa ni ñun Sénégal dañu toll foo xam ne fii. waruñoo roy benn réew réew yi ñoo ñu war a roy surtout réewu africain yi ndax Sénégal lépp loo xam ne lii am na ko à travers le monde nekk benn pays bu ndaw boo xam ne amoo daanaka pauvre nga amoo dara mais sa tur foo toll ñu ngi koy dégg foo toll ñu ngi lay naw foo toll ñu ngi lay roy loolu lenn rek mooy ñu koy jox mooy teraanga teraanga sénégalaise nag mag ñee ko liggéey teg ko fi muy suñu ndam mooy suñu miroir à l'extérieur loolu bu ñu ko kenn yàqal amuñu lu dul teraanga bi teraanga boobu bés bu ñu ko yàqee rek yaakaar naa ne Sénégal dina naax saay kenn dootu ko dégg fenn kenn dootu ko dugg fenn te doomu sénégalais yi si bitim réew danañu sonn. Mhm. kon nag Seydou Sarr maa ngi lay ñaan nga dellusiwaat xoolaat sa projet te xam ne yoon bi nga jël du yoon boobu. Mmh. mais euh, aussi comment dirais-je Youssouf euh, Mbengue malgré sensibilisation bi nga xam ni ñu ngi koy def tout le temps contre immigration irrégulière terewul ba léegi ndaw yi ñu ngi jël gaal yi di faatu noo gisee mbir moomu. man daal migration moom mooy sama deret mooy am naa ci plus de trente années d'activité lu ma xam la lu ma maîtriser la macha allah. mais li ma ciy wax toujours moom lay wax tey moom laa doon wax démb bi ma ko dalee wax mat na ñetti at ñeenti at. te solution bi ma proposé ñu ko defoon kon tey waxatuñu benn xale mu ngi dee ci géej gi lii mun a am mooy convention de rapatriement waxtaan ak Espagne ba gaal gu dem ñu jàpp leen defar leen ba ñu jekk bañ leen a brutaliser bañ leen a lor delloosiwaat leen loolu c'est pour sauver des vies humaines ndax jeunes yi bu ñu xamee ne bu ñu jaaree ci géej gi dem ñu dëpp leen kenn dootul dem bu boobaa des milliers et des milliers de jeunes vont conserver leur vie danañ leen sauver loolu daal vraiment man moom mooy sama sama plaidoyer loolu toujours bu may wax ci solution solution boobu moom lay teg. Mhm. xale yépp boo leen dajalee joxoon leen liggéey sax terewul dina am ñu fi bàyyi seen liggéey dem. Mhm. kon problème mu liggéey rek taxul xale yi dem. d' accord euh, dernière question ban assemblée ngay xaar parce que 17 novembre bi sénégalais yi daañu dem ci urne yi pour tànn ay député yu bees kon assemblée boobu ci tënk rek une minute euh, lan nga ciy xaar. <coughs> li may njëkk a xaar mooy d' abord euh, campagne bi ni mu demee daal yàlla fexe ba jàmm ji daal continuer ma koy ñaan acteurs yépp ah, ku si nekk ma lay souhaiter bonne chance lépp lu la yàlla may nga xam ne loolu la la yàlla may. mais problème mu assemblée bii di ñëw dama bëgg ñu xoolaat ñu soppiwaat mbiru assemblée bi ndax assemblée bi boo calculer député bu ci nekk ci cinq ans yiñ ko fal dina consommer presque lu jege cinq cent millions de francais CFA ci juróomi at yi te li muy taxaw assemblée bariwul assemblée du postu liggéey boo xam ne danga nga fay dem di xëy di wàcc ñu lay fay par weer contribution la pour nga def ko jàppale sa réew assemblée bi dañu war a xool avantage ñi ngeen jox da dafa ëpp ñu wàññi ko ku ci dem session ñu jox la sa për jëm xool ay avantage yu ñu defal mais li ñuy consommer si suñu alal ak ni nit ñu sonne hôpitaux yi soxla ay garab ñu soxla ay hôpital soxla ay classe soxla ay école cinq ans cinq années benn nit consommé si cinq cent millions loolu yaakaar naa ne jaaduwul kon nañ seetaat loolu voilà euh, kon ñu ngi lay remercier bu baax a baax Youssouf euh, Mbengue ci sa disponibilité merci merci maa ngi leen di sant di leen gërëm Ndeye Comba. jërëjëf Youssouf merci beaucoup. merci.